bu Sénégal ñoo ko bëgg génne Ndakaaru yéen kaay gi nee na Guy Marius Sagna daan nay nett li nag jafe-jafe yi nga xam ne jot na koo dund ndax nee na lu toll ci juróom-ñetti affectation yoo xam ne daan nañu ko koy affecté te nag jàpp na ne jamono ji daal maanaam trop c'est trop mbir mi a dakk moom Guy Marius Sagna daan wax ne am na ñeenti yoon yoo xam ne dugal nañ ko ko kaso yéen kaay gi ba tey moom Guy Marius Sagna daan nay wax ne affectation bi di leen ko dégg waaye amul benn notification boo xam ne dañu ma koo daal di jox yéen kaay gi di Vox Populi xëy diñu xibaar naan ñu Guy Marius Sagna jamono ji nag daan nay jéngoo bi di Sud Quotidien quotidien xëy na ci autour APS bi daan wax ne état bu dugg na ci capital bi ci lu toll ci vingt cinq bi ci boppam la kay négocier waat journal bi nee na redevance dooma ñaal bi nga xam ne mille francs la woon at mu jot yóbbu nañ ko ba huit ci at mi yéen gi nee na Macky Sall mboolem li nga xam ne Abdoulaye Wade bàyyi woon na ko ci autour APS bi Macky Sall koy jubbante journal bi nee na maatay gi nga xam ne moom la EFAS nekk woon loolee bu Sénégal nee njombe yu bëri yi bu ngeen ko gisee ak giraawaal yi na leen leer na nguur guy jeex la ndax scandale fu ko waay dafay passé te scandale yi dafay wa yéen a kaay gi dalee seko nee nag fi nga xam ne mooy trésor public ak détournement yi nga xam ne moo fa nekk am na ay kilifa yoo xam ne ñoo ngi jokkoo ngir nag bëgg nëpp nëppal mbir mi ndax nag trésor public dafa am détournement boo xam ne ëpp na ñeenti milliards ñaari percepteurs yi nga xam ne teg nañu leen loxo gars yi jamono communication daal joxe lu toll ci millions weer wu jot mu daal joxe trente cinq millions journal bi nee na am ba des daal ñoo ngi bëgg nëpp nëppal détournement bi nga xam ne am na trésor yéen a l'observateur xëy di ñu xibaara naan ñu trafic passeport diplomatique yi nga xam ne moom ngeen doon dégg diggante présidence ak ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères am na juróom benn ñoo xam ne teg nañu leen loxo ba yóbbu leen ci kasub rëbës sàmm jikko yi daan nañu koy déposé ci table Moustapha Niass yéene kaay gi de la témoin nee na en tout cas li am ba de sall Macky Sall jamono ji soo muy tuulee du nelaw ba yandoor ndax nag ma ngi diggante occidentaux yi ak kilifa diine yi maanaam loi bi Macky Sall nan lay def ak occidentaux yi loolee ab laaj la waaye tamit nan lay def ak kilifa diine yi loolee tamit ab laaj la yéene kaay gi di réew mi ko de cee xëy nag ci bi ak pétrole bi nga xam ne njiitu di président Macky Sall daan nay wax ne lu toll ci sept cent milliards Sénégal dina am ne moom lay état bi waxee ne moom la koy jëfandikoo Assane Samb nee nag intention yooyu yëpp état bu Sénégal jël maanaam ngir leeral mbir mi nag lu baax la waaye nag li nga xam ne daal moo ëpp solo maanaam nag alal ji xaalis bi ñu jël ko dugal ko fi nga xam ne moom lañ ko war a dugal ndax état bu Sénégal gis nañ ne farata ja fële la koy bàyyi maanaam jël xaalis bi nag jël ay poste yoo xamante ni amul benn njariñ dugal fa ay militant ma maanaam ay ministre conseil yoo xamante ni kenn xamuñ lan la ñuy jariñ ci réew mi ak ay institution yoo xamante ni lekk xaalis su réew mi rek maanaam nag lañ fi nekkee bu dee nag fii la Macky Sall bëgg a xaalis bi maanaam nag béy boo yaakaar jamono ji nag li nga xam ne daal moo yite ji mooy nag jël xaalis bi tabax ci ay université tabax ci ay hôpitaux tabax ci ay école tabax ci ay centre de santé ba pare équipé li nga xam ne mooy militaire yi yéen kaay gi ne na waaw Forum Civil la ñoom Birahim sek ne nañ nag mbir mi daal dafa am ay leesu xula ndax nag texte yi nga xam ne moo jëm ci projet de loi bi loolee dañu leen ko waroon a jox maanaam ñu liir ko ba pare daal daal di koy xool yéen a kaay gi de Libération nee na banditisme foncier moo am te diiwaanu Yoff yéen a kaay gi de la sa Ba mi nga xam ne moo njiitu Loka moom nag nee na dina porte plainte société africaine la finance maanaam Sarr ca diwaanu Londres ba pare nag di ko laaj lu ci cent soixante-dix milliards yéen a kaay gi du l'Observateur nee na bi nga xam ne am nag ca diwaanu Sarr loole nag doy na waar yéen a kaay gi de Les Échos nag yéen a ngi fàttaliku El Hadji Seck Ndiaye Wade El Hadji Seck Ndiaye Wade of nag nag joxar bi woon na ko baaraamu tuuma ci ay luubal ci ay girawaali moom nag El Hadji Seck Ndiaye Wade moomee Macky nag nommé na ko a